ko jox kaasu café mu naan mu ne bu mu naanee kaasu kafe bi yendu fa ba ngoon ñibbi boobu ba léegi bu demee liggéey bu liggéey jee ñu jox ko xaalis mu nar dem verser ci banque bi day jël xaalis bi daal di koy yónnee sëriñ bi maanaam daal yónnee na sëriñ bi ba yónnee ko presque six millions ak lu teg ak beneen trois millions sept cent en daal nekk na neuf millions sept xale bu jigéen bi jékki-jékki na ne lii du neen man may liggéey ak ay naar depuis des années ba dem ba nekk <laughs> yow mi di ree yaa may reetaan loo <laughs> astafirullah sama ah, bu ngeen reewee yàq sama live lii dafa triste yaram dafa diis ah yàq ngeen live yëpp xanaa bëgg leen mu àgg ak ma jël kii ko dund mu wax après yeneen def si xew yu garaaw bu leen yàq s'il vous plaît tapote leen rek yéen ceddo bu leen ree bu ngeen ree damay ree dama gaaw léegi xale bu jigéen bi toog waxtaan ak njegenaayam ne man li ma dal du jàmm man may liggéey ak ay naar depuis des années ba nekk responsable ba ñu wóolu ma versement vingt millions trente millions man lañ koy jox may dem di ko verser si banque bi yor sama oto yor sama lépp ma jékki-jékki caissier banque bi ne ma kaay ma boole la ak sama sëriñ nga ñëw jébbalu si moom mu doon sa kilifa adduna ak alaxira ma dégg loolu dem ci moom lu ma mës def ma demit kooku yëkkati kaasu kafe jox ma ma naan boobu ba léegi buñ ma joxee xaalis versement may ñëw di ko verser sëriñ bi par ay envoi ay wave ak ay transfert xale bi jékki-jékki jommi turu am na mu jékki-jékki patron mi laaj ko xaalis bu ñu la waxoon versé ko banque animu moom it ñemewul wax que dafa am sëriñ bu mu dem rencontrel peut-être moom it waxut ba ñooñu porté ko bañ ko porté plainte mu dem ñu tëj ko ci kaso bi bañ ko tëjee un mois may ko liberté provisoire bañ ko mayee liberté provisoire si la deuxième plainte dugg parce que première plainte bi plaignant six millions la mais beneen plainte bu trois millions et quelques dugg mu xam ne kii waat bu duggee dinañ ko waat te bee passé comme am na liberté provisoire te na un mois bu moytuwul dina am ngan problème xale bu jigéen bi daal di góor góorgóorlu daw génn Sénégal nekk si dëkk sous région bi bàyyi njabootam ñeent doomam ci biir Sénégal borom kër moom bu mu doon sëyal tas na bien yu mu amoon amatu ko joom mi ba mu ñëwee si sous région bi mu contacter sëriñ bi ne ko sama sëriñ maa ngi lay nuyu man de dama nekk si ay jafe-jafe expliquer ko maa ngi doon liggéey boobu ba liggéey ati at di def sama njaboot ba jënd sama oto bopp am naa ñeent bant ma xam la si diggante bi li ma doon yor yépp ma la koy verser te xaalis boobu moom moo ko teg maa dimbali sëriñ bi di ko commencé ne amul problème dina ko dimbali ba mu nekk sax milliardaire si noonu sëriñ bi di ko woo sax ba ne ko yow ban dëkk nga nekk mu expliqué ko mu ngi si sous région bi sëriñ bi ne ko woo ma vidéo mu woo ko vidéo sëriñ bi commencé dugal intéressé wàllu sama classe ki rek dangaa jekk bi nga gëjee ci man laa gëjee yëg sama bopp fu mu ne nii maa ngi la namm sëriñ bi commencé yooyu xale bu jigéen bi tamit jommi xam ne sëriñ bi kalaasu Moodu Faal bi la daa di coupé sëriñ bi di ko yónnee audio xale bi téye audio yëpp ojo yéegi fii na mën na deux cent cinquante mille audio sëriñ bi kàddu yu ñaaw yoo xamante ni kalaasu kalifan bi yooyu la ñuy wax xale bu jigéen bi sëriñ bi yooyu lay yëkkati waaw waaw fu mu ne nii maa ngi ne zuy nangam taanal sama ndey waaw sëriñ bi affiché wu ma photo sëñ bi nag yónnee na ma ko nag mooy wax dëgg fa yàlla bëgguma affiché photo sëñ bi bëgguma ko affiché de xale bu jigéen bi yónnee na ma foto sëñ bi ba yónnee ma sëriñ bi fu mu teewee anaconda bi di rëm tëmbitam yaa asugay ba dem ardo yépp mu ngi sama téléphone mais ñemewu ko teg nag parce que rëmtëm bi moom bu ma ko tegee TikTok mën na tëj sama compte sëñ bi nag moo ëppale Ahmed si nag waaw sama sëriñ nandite bi kii moom sëriñ dëgg la nag parce que sëñ nandite bi moom waaw mais sëñ bi moom non laisse tomber waaw sëriñ bi xale bu jigéen bi yónnee ma sax ay vidéo ay taalibe di sukk di raam tëf tëf maa ngeeg vidéo yi duma waxantu mais nag vraiment du ma ko teg te bu ma kenn Kaliphone yónnee ma gaaw ngeen si lool yónnee ma vidéo yi léegi nag tunga ne du teelu ni nataal xëy na xale bu jigéen bi xaaral ma xool kontam bu dee dugg na fii xaaral bu dee yaa ngi may seetaan sa compte bi xàmmeewu ma ko xaaral ma wala appel WhatsApp France nga wax ma ban compte la ma jël la gars yi may la ma tëj micro bi ma woo salaamaaleykum Kaliphone ça va si yaa ngi si jàmm ma de dama amoon kaa bu bu ma bu ma metti sax bu doy waar moo tax ma ñëw si yow pour wut si ndimbal euh, ndax dama doon liggéey fii si benn société bu nekk Dakar mais maa ngi doon dëkk ma nekk nekk woon Dakar maa ngi di jaay amaat keneen ku ma seqal tamit koo xam dafa ma jox ay koy jaay dafa ma jox ay bagages ma koy jaay di ko vex sa xaalisam mën naa ne kon ñaari nit laa liggéey banque bi ma daan versé xaalis am waaju fa nekk caissier la fexe ba ne ma eh, daf may booleeg sëriñam ndax man comme dama baax dafa bëgg ma bokk seen daar jeeg yooyu bu fexe bama ma dem si kër sëriñam ba ba ma fa demee sëriñam ba ma ñëwee lu ma njëkk a wax ne café gu mu ndogoon nañ ma si jox ma naan ba ma naanee café googu nag laa tàqali ko sama sago lu ma liggéey yóbbu fa lu ma am jox leen temps bu ma am dem fa ba xëy am problème bu mag ñu plainte ma ñaari plainte benn plainte bu njëkk ba si naa defee un mois si kaso bi ba ma defee un mois ma génn ñu may ma liberté provisoire mais dama war a fay xaasu jàmbur léegi nag awma lu ma faye daw naa dëkk bi bàyyi fa sama njaboot ak sama rakk te ñoom ñëpp si man lañ yaakaar euh, sama doom yi dama tas ak seen papa sama jëkkër ji maam kilifa la si wàllu yoon foofu Sénégal waaye problème man na fu kenn du si man dara moo tax ma daw nii ba ma dawee nag boobu ba fi ma nekk nii maa fi ak teg si yoon ba problème bi ma génn si tax ma ñëw si waaw léegi nag xaalis boobu ma waroon del di verser ci banque bi moom laa ko doon jox ndax xam naa daf ma liggéey te ci café googu ma naanoon ci la ko def ba ma duggee kaso ba génn ma naan seen liggéey bi toj na sama bopp ubbeeku si dëkk bi ma nekk ma ma fi ñëwee ma ko doon woo pour xool nu may dimbalee ndax dafa waxoon dina ma dimbal sama problème ba ma mën a fay sama bori wala ma avance mais bu ma ko woowee dafa naan ma ay appel vidéo wala. vocal ma bégal ma ma daanu loolu la ma daan wax finalement dama ko defal appel vidéo rien que rek pour mën a am preuve nit ñi ne kii du nit ku baax du sëriñ du sëriñ bu ñuy topp waaw lool loolu loolu la def naa amul appel vidéo vocal na ma ay vocal tamit yooyu yëpp dinaa la ko envoyé nga dégg pour wax nit ñi rek nañu moytu sëriñ nañu bàyyi sëriñ ndax lii yàq na sama àdduna gisatuma sama njaboot gisatuma sama jëkkër bàyyi naa sama alal te maa yoroon sama liggéey bu baax yor sama oto yor sama teraanga yëpp képp koo mën a dimbali samay mbokk demal laa dimbali tey nag li yàq na sama àdduna maa ngi nii war commencé waat à te xaw ma fan laa jëm mënatuma gis sama njaboot bu ma juree samay doom ba léegi musuma tàqale ak sama njaboot tey maa ngi nii dem nañ ba macha allah njaboot naa gisatuma leen dégguñu ma xamuñu su ma nekk te xam naa ne ni ma jaaxlee si ñoom noonu lañ jaaxlee si man kali maa ngi lay ñaan euh, lu ma si waaye mën a dimbalee rek ba ma régler sama problème bii rek ba ma gisaa sama njaboot wala delluwaat sama njaboot. waaw may wax tamit euh, sama mbokk même bu dul jigéen sax képp kuy liggéey di verser dem ci banque di fa verser yenn gros somme nga bañ a euh, fay liggéey ndax man tey sama toog-toog yi ni ma ko indil mooy ku ñuy wax Ablaye Diop moom mooy liggéey moo doon liggéey ci banque BND moom moo jàpp sama loxo yóbbu ma ba sëriñ kon mën naa ne tey lépp lu ma dal ci loxoom la jóge ndax bu ma yóbbu woon sëriñ amaana duma ko xam may wax nag képp kuy liggéey ci xaalis nga bañ a amal tey affinité kenn kuy liggéey ci banque parce que dañ def ay cible moom nii nii nii nekku Sénégal fukki na dem na bitim man maa fi desoon ak sëñ bi te man tamit gàddaay naa ndax mënatuma toog si dëkk bi sëñ bi nag du sëriñ sëñ bi moom du sëriñ ndax sëriñ bi defoo nit ay appel vidéo di ko wan ay taatam di ko bokkaal bokkaal kenn mënul dégg di liggéey nit loo am jox loo am jox ndax am laa ji ma boole moom am na bokkaal yu ma yónnee ne ma xam-xam bu ñuul daf ko yore man mag ba ma koy topp du woon ay sëriñ ñaan ak ndax man taal ba sëriñ Tuubaa laa laa bi looloo taxoon ma dugg si moom waaye nag ba ma xam ne Sëriñ Tuubaa nekkul si moom génn naa waaye ma leen wax rek ne kii du sëriñ. naa ko expliqué ko mais lu may def daf may baab suturaal ko suturaal ko bàyyi ka internet di baaxul ak yooyu la may wax di ma baab pour ma bañ ko weer waaye man. sëriñ bi dama koy weer ndax ñeneen taalibe yi koy jox seeni dërëm te di ko liggéey mu ñaqale leew leen doom ak ñi ko topp te moom li muy woote nekk ko looloo tax ma ñëw di ko dénoncé tey jii Mm, d'accord ok parce ok Kali. ok léegi yaakaar naa audio yi nag dafa bëri dafa dafa bëri audio yi dafa bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri su dafa bëri léegi xaaral ma xool moom lu mu waxati sax Kari man de wër naa ba sonn yow léegi ñu nekk sa laay bi xoolal ku ma mën a ajouté moom mu yéegal mu mu dugal ma wër naa ba sonn gis ma sa laay bi. ah man jaaxle naa. pourtant si sama TikTok nga ma bindee message. léegi xaaral ma woo ko WhatsApp mu expliqué du moo gën a ah xaaral ma woo ko